serigne bi neena mi ngi nuyu bokk yi fi tew ak talibé yépp jam am leen wax ne li waral jotaay bi moy waajal magal gi ak leral ko. neena li waj li waral jotaay bi moy waajal magal gi ak leral ko. leeral gi ay ay ay fanangi ni dinañ mag dañu magal ni ne duñ magal neena ay fanangi ni ñi naan danañ magal ak duñu magal dem ba jot ci bind sax. ne màggal gi duñ ko def ren. nee na am nañu dem ba jot cee bind sax ni màggal gi su ko def ren. lépp wéru ci ndax jëlewuñ ko ci e, source yu wér. nee na waaye loolu lépp dara wéru ci ndax jëlewuñ ko ci source yu wér. fekk na sax gisaguñu sëriñ bi. nee na booba sax fekk na giseegut ak sëriñ bi. ba am ci ndigal ba am ci ndigal. gis nañ moom. Mhm. am na ci ndigal. nee na léegi gis na ko